aw fi fan la mun fi le fi la sun borom di faye jam ni ñu taxaw tuuti ma seen ab lampe buy tàkk fële ci ta kaw ma dal ni ma dal ni ko mu lampe bay tak lum doon mu ni ma tawbatu ba tunu soxla ma ne ko nante dem ñu dem ba ca lampe ba ma fekk fa ay pigné yu gatt armal u genn seen benn mbagg rang di dugg ci bir mu ni ma nan rang tis bu rang mu xaddamaat rang mu bu rang ma rang topp ñuy dugg ci mu xaddamaat dugg tis bu dugg mu bëgg dugg sëñ génn ci bunt bi ñu ma fii àjjana la dama la ko doon woon ku dugg doo ni ma ku dugg doo génnaat dama la ko doon woon rek waaye di kër gu nettali naa ko Cheikh Abdou surtout sëñ Moussa boobu ak tey fanweeri at la ak ñett wala juróom benn mën na ko <laughs> noonu la demee soxna Fatou Abdou jërëjëf. jërëjëf sëñ Akisa. waaw laaj bi may indi. Serigne Fallou Mbacke Serigne Cheikh Aïda Fatma ma nga ca France mi ngi lay ziare. maa ngi koy delloo Babacar Ndiaye Darou Salaam. maa ngi koy delloo baax ak Babacar na kenn nelawul. ñoom ñëpp ngi lay déglu. alhamdulilah soxna may dara mu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ak soxna Amsatou Diop moom soxna Bintu moom sëriñ Modou Safa maa leen soxna mayu sëñ Moussa Abdou Sakour ca Paris ak mbay jëm taal bi sëñ Amsa borom xasida laaj bi may laaj akasa def nga 76 pays dëgg la juróom-ñaar fukki réew ak juróom mbenn dëgg la waaye yow noo doon tukkee bii yi foo ko doon jëlee da ngaa passeport diplomatique wala looy demee ñaareel bi mooy akasa ban yëg-yëg nga am tey ci lu toll ci téeméer nit wala wala junni nit di la di la roy yow di daaj say air di mus di ko bëggee ban njëg nga ci am. laaj boobu laay jëkk tontu yéeg bi ma am ci ñu may roy sëñ Touba moo sëñ Touba la tayam di gàcceel démbam sëñ tubaab moo mën nitam man ku ne ci moom sëñ Touba boo ay ñëpp jàpp jàpp da lay suturaal teral la ba noppi sagal la ndax xasaayit yi bi ma koy jàngkat sama bokk yi dañoo defoon ni damay taxawaalu wala maa bokkul dara nee woon nañ ma soo doom soxna desu la ko may de Touba gi it nee ma fi ba tàyyi doo am kër ndax man bi may tabaxal nit ñi kër dama doon luye bi may maye oto it dama doon luye waaye sëñ Touba fukk kër yu bari la ma jox bu ma ci neex fanaan Touba kër yu bari laa yor fu ma neex fanaan <laughs> waaye nag gi ma seex fa sëñ Fallou Diop galam jox moom a gën a neex ndax ci laa denc sama xarit. waaye sunu ak sama sama goro bu baax ba fa. waaw waaw ko sëñ Modou Faye Jama Niang. ñoom ñëpp maa leen di maa dëkk ak ñoom maa dëkk ak waa Kër Niang. dégg nga Cheikh Mbacke Mboup li ma ci yëg mooy sant sëñ Touba sëñ tubaa moom mën nitam boo nekk ci moom du la rusloo sëñ Touba da lay jàpp di la jox ndam di la jox ndam di la jox ndam ba bis penc loolu laa ci sant yàlla ndax jàng mii. bis dana ñëw ñu denc ma. te man ragaluma dee ndax ragaluma fa. wan nañ la ko. barkaal xuraan. waaye jàng yii li tax ma ci bég mooy su ma faatoon du fi jóg ba bis penc te ku ci yëkkatee sa baat ñoom ñii ak ñi ci des ñëpp suñu borom gërëm ma wàcce ko ci sama bàmmeel ak sama ruux ba bis penc ak jàmm te lu ma bàyyi xel la di ko waajal la ci des man sama jëmm mooy sama la diplomatie sama bi yar ak samay teggin ak sama ngor ak sama kàddu man garmi laa te garmi yoo xam rek laam waaw non garmi garal barkal furam waaw boole ko ba mu des ngorom ak yaram ak diinam ak yaram ak yaram loolu taarix la seex mhm. seex Ibra Faal keroog ba mu jébbaloo ci sëñ Tuubaa dina ko jox naa la sama lépp ba mu des sama ngor sëñ Tuubaa bàyyi ba mu ami fan mu ne ko seex keroog ba nga jibulo da nga ni joxe nga sa lepp bam dess sa ngor sa ngor lu tax joxe woo mu ne ko mom la bëgg ànd ngi mom Cheikh Rafa. wa waye ñima andal di liggéey ci réew mi ak biti réew biti réew amu fa internet interdit mosuma faa jëndaloo kenn casque wala téléphone wala montar wala portable lu ma fa bëgg mako jëndul sa bop bopp mosuma faa sant kenn dara ñu ngi may dégg partout dans le monde. billahi wallahi wa watalaahi amerique dem na fa ñetti fan la fa dox sama soxla bamba dee yóbbu ma mu jeex mu ñibbi saat dëgg la waaw personnalité Abdou Samb ma dalal génn ma néegam bu ma génnee restaurant lay <laughs> ci biir néeg bi ma daal barki Seexul Xadim waaye su ma daan tukkee aw ma passeport diplomatique déedéet waaye dama yar bi ma am dama sàmmoon teeg ambassade yi dama sàmmonteeg ñoom li ñu may may sàmmonteeg seeni ndigal sàmmonteeg seeni droit tënku ca ba ci Amérique bu ñu ma mayee trente jours sax six jours laa fay def retourné te këyit woowu lépp nga ko jaarale ci jëma jee toog Modou Kandji bi may xale la ma gis fii rek ni ma ee eh, booy kaa yow ma ne ko bu ma waxati booy de <laughs> mu ne bootul booy loo doon yóbbu ma këram tàngalal ma da na fanaani sax kërëm te bobu néeg bu xat la yor mu dem Europe bindal ma aw kayit ndax booba damaa toog ci réew mi may fofu aduna bépp nga may dégg man ne leen man duma dem ci menn réew di jàngale kenn te siyaariwu ma rasulullah ba nopi fek siyaariwu ma rasulullah yi duma dem whatsapp moo ñew nañ fi jël sima ma jox ma pass jox ma devise ak lepp ma leen damay saare rasulullah ba nopi door dem ci ben rek ma tok seigne Moustapha Moussamba mu bax mi yal na yalla guddal fanam di bëgg dogu mu yónnee ma biyee ne ma demal saare rasulullah bima ma la fekk seigne Modou mi yone ma invitation ma dem fekk ko Granada ñu ay ay góor yu bax waye sama passeport ordinaire kese lay tukkee waaye damaa respecté ambassadeurs yi mm-hmm. ordre yi nu may jox respecté bi ma ko moom mooma may ma dem ci adduna bi yëpp ba dem fi géej gi sax daje maxrajal baxray ni delta xëy sëñ Aka ku la njëkk a enregistré yóbbante yóbbante àq la boo ko waxul tooñ mm-hmm. sëñ sa bismillah sëñ sa soppe waaw sëñ Malay Amérique New York waaw sëñ Malay sa xarit ndeysaan nee na mi ngi topp jotaay bi dëgg la maa ngi koy nuyu bu baax sama yaay maître lii Kaba waaw mi ngi mi ah, yow xam nga ko yow moom xam nga ko. ñu déglu ñu déglu waaw. sëñ Modou Kandji. sëñ Modou Kandji. bismillah. barke Cheikh Abdoulaye Sow. laa maa bu baax a baax. day baax a baax Kandji. te di la la jox sa wàccuwaay. jërëjëf Kandji jërëjëf. mboolem ku nekk ci plateau bi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. Ablaye Mbaye Beex maa ngi lay nuyu te di la siyaar. ndax euh, dama laa xaw fan ndax lu tax dangaa xam li la si kilifa defal muy sëñ Abdou Khadre dëgg nga jàpp ko téye ko te caaxaanoo ci too ko foye loolu tax ma xaw laa fan bu loolu paasee sëñ Akassa damaa jige ba lu bari mu ma ko see moom wax nga dëgg wax nga dëgg maa ngi nuyu nag sama xarit di sama wóllëre di sama jëwriñ ñu naa ko Serigne Mbow ca gàddaay waaw dañoo bëggoon nga jëkk taxaw na ab caméra yi mën laa jàkkaarloog yow eh, kii di kii di kii di kii di ab murit la waaw biir eh, eh, kii di kii di murit la waaw man murit la biir Sëriñ Tuubaa defal na ko dëgg la kii nii hmm. partre bu nii laa yor mu di ci fanaan xam nga danaa ak saa joxe loolu xeem naa ko lay la wax ni wa innaka la ala xuluqin loolu mu firi wa innaka yow yonent bi la ala afala tafdil kuy tedd jikko sa jikkoo gën a féete kaw daanaka bu ñooñu ñëpp moo ca tegu dama daa fanaan moom ci blal dix minutes ma xar bu ma yeewoo maa ngi dégg pereful sam bi dab ci salaatu ala nabi bu bët set bicc mu julli fajar tëddaat te def ko ay yoon xol bi laab bi li ma ci xam ruus naa ko wax allahu akbar ànd ak moom ci sëriñ Saliou Mbacke ay yoon ci yaaru donga yi dalli donga yi maa ngi ko taxawal bi ñu demee bi ñu ko jëkk yóbbu sëñ Saliou bi ko te ah lii de jëf ku xër la waaye ku xër nga de waaye loo ci ñaan rek sëñ Tuubaa dina la ko defal dëgg la maa ngi toog bi ma ko jëkkee yóbbu Espagne ñaareel bi yoonam Italie la ma fekk ma am dëkk bu ma ko yebal bi mu jàngee ba pare nii la jale xaalis bi muy ay million benn waay dikk raam ni ko sëñ bi de man dama xaw doy waar toog naa fi ay at te fii yi waar dëkk bi dëgër mu lem kaala ga jox ko jàngee tas mu dem kër ga woo ma ni ma sëñ bi man de xanaa paas man ko saay comme que moom lu la jox nga joxe ko boo joxe ba pare lijjanti lu la yóbbu man maa ngi fii ci ter yóoru ma du a yóbbu moom mënu ma la ko jox te xoola ay miraaran ay yoon jukko ju rafet ji yar bi teggin yi foo ko nag paase na ko barke sëñ Touba Mbacke. ndeysaan. mënumaa wax ci moom daal. dëgg la dafa am teraanga bu fi ñëw. ñu jox ma ko. jërëjëf Kandji. muy fukki junni. waaye teraanga boobu. Ablaye Lam laa koy joxaat. waaw waaw addi Cheikh Abdoul Khadir. joxal joxal ma ko Ablaye Lam. yaay ndax yaay say joxaane moo fi indi teraanga bi sànq. sa ñaari bay waay yàlla nga gudd fan sa ñaari wóllëre ak sa ñu ngi lay nuyu waaw yow mu di euh, tonton Ablaye Diop tonton Laye Diop dëgg la mu ngi lay nuyu mm-hmm. sa beneen wóllëre bu ñuy wax tamit euh, euh, bu ñuy wax Ibrahima Ndoye Jaraaf Ibrahima Ndoye Jaraaf kër Mbay Fall Mbay Fall maa moom nee na takkusaanu Serigne Babacar si yi muy def chaque année yaa koy jàngal koy jàngal xoolal loolu Ibrahima Ndoye Jaraaf Eh, loolu mom dama ci jarat, dama ci jarat jarat dama ci jaaraat bu baax dama bëgg ñu xamni ni man taalibe cheikh yi ma ak ñom bëgg bañ àjjana ma ak ñom boole naan rek wala boole tour ah, waaw ndax yalla ñu boole man si kanam soxna asusi malik taw taawu Cheikh Jaaj la juddo oh waaw barki seigne touba sama kër ma malik ko da waxar soxna asusi si Malick ngi ni waaw waaw ci kër ga lay dale ba fa lay jangé <laughs> isa ñoo dend duñ tàggoo jóge naa fii dem Italie jàngali Medoune Ndiaye doomi alaaji Pape njaay Ndiaye taalibe Cheikh Abdul Alhaji Abdul Aziz Medoune Ndiaye nga xam ne taalibe Cheikh la waaye at mu jot may jàng-jàng yi la dispoli du ko jàngali waaye Linguère jàngali naa leen man ak alaaji Ibou Sakho Linguère tant bi yëpp ay tijaan lan maa ci murit ak alaaji Ibou Sakho hmm. mu yàgg maa jëfal teraanga ndóoy mii muy wax nii tàkkusaanu suñ Babacar sa suñ Babacar ba kër si yi muy def at mu ne maa koy jàng fii ci euh, ci Kër Mbay Fall. Kër Mbay ku baax nag. El Hadj Abdoulaye Mbaye. gumba bu la nee nan sànnante. Mhm. bul nangu. dëgg la ndax joggi na ci xeer.